dellusi nañ beneen yoon ci seen waxtaan yóbbalu koor tey nag li ñuy waxtaanee mooy li nga xam ne moo tëj li nga xam ne mooy weeru koor am na war nañ ko def ci biir weeru koor te muy sunna mooy li ñuy wax zakatul fitri ah, lan mooy lan mooy àttee zakatul fitri ak ban xekma moo tax ñu yoonal ko ak yan condition mooy daje ñu war ko def ak ci ban kem lañ ko war a génnee ak Euh, kan moo ko war a ak ban ko war a génne zakatul fitri nit ñi julli ñu war nañ ko farataal war nañ koy def yitte comme niñ defee yo euh, sugar sugaru koor ñii di ko génne ko jox seeni goro ñii di ko génne di ko jox seeni njëkke euh, di ci rey seen bopp nag def ko ba mel ni farata du farata du sunna waaye li nga xam ne moo gën a doon farata di sunna mooy zakatul fitri yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne ramadan muallaqun bayna samaa'i wal ard wala yurfa illa bi zakati fitri kii di waaru koor dañ ko teg diggante asamaan ak suuf duñ ko yégal mukk mu àgg ci place bu mu war a àgg lu borom dafa génne asakaay mburam koor kon nag li atte bi nga xam ne nag moo nekk ci li ñuy wax muuram koor lan mooy atte bi atte bi mooy wér na ci attey génne asakaay muuram koor na far na farata luy tegtal ci loolu duñ wax ne mbir farata la wala wajib la lool dañu andi tektel ben ci alquran wala sunna waye li ko def farata moy sunna yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam te sunna ben la ci yi nga xamne da fay ne da fay dafay da fay daganal da fay sibal kon sunna ben la ci kon nak tektel biñu andi buy wane ne lii farata la moy li nga xamne solo nañ ko jele ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma موم مو عبد الله بن عباس مو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم زكاة الفطر موم من يندي بي على زكاة مورم كور لو تخ مو ديف كو نك طهرة للصائم داف كوي ديف بور لابل كي اوكي او لابل كو تي لان من اللغوي كي واخي تياخان كي اي فو والرفث اك واخي واخي بون وطعمة للمساكين تي داف كو ديف تيمين مو نيك لو خامني نيام لا ني ليغا خامني اي مسكين لاني mun nag mu ne man addaaha qabla salaati fa hiya zakatu zakatun maqbulatun képp ku ko joxe avant ñu julli loolu azakay mburoom koor bu nangu la waaye man addaaha baada salaati fa hiya sadaqatu min as su fekkee nit ki daf ko génne gannaaw ba julli gi passé na jàpp ne dafa génne sarax ci sarax yi rek waaye pour mu nekk azakay mburoom dëgg-dëgg mooy daf koy joxe avant ñu julli ñaareel mooy ban xikma moo ci nekk la moo tax ñu yoonal ko ñaari mbir la bi ci njëkk mooy jabrul xalalil waaqi fi saw mi mooy fexe ba réparer défaut yi nga xam ne moo amoon ci biir weeru koor comme ni nga xamee ne julli nit ki buy julli bu amee ay defo yu am ci biir dafay def lu ñuy wax sujootu shahwi ak sujootu sujootu sahwi mooy xabla salaam ak baada salaam su fekkee am na ay défaut yu am ci biir julli gi daf noonu la koy réparer comme ni comme ni mu amee ci julli noonu amee ci ko kon nag défaut yi nga xam ne am na ci biir koor kooku euh, asakaay muru koor day ñëw pour réparer ko pour selal ko parce que kii or amaana mu dugg ci yoo xam ne ci biir wéeru koor wi yoo xam ne dafay uuteeg li ko yàlla dugal yu ko lu ko yàlla digal su ko defee loolu mooy tilimal mooy tilimal euh, matak matak koor gi ah, benn mu nekk ci mu nekk ci ay caaxaan wala muy sàggante wala muy xool jëm ci loo xool boo xam ne dafa xaram comme ni ñëwee ci xaj comme ni ñëwee ci bi beneen bi li tax na ñu yoral ko mooy taamimul faraxati li kulli muslimin mooy fexe ba li nga xam ne mbégte bi nga xam ne am na ci jour boobu jour boobu jour mbégte la jour kontante la dañoo bëgg nag jour boobu ñëpp war a kontaan képp kuy jullit danga war a kontaan moo xam nga am moo xam nga ñàkk da nga war a kontaan léegi ñi ñàkk ni ñàkk war nañ leen fexe ba jour boobu ñu bokk ci ñuy kontaan mooy fexe ba may leen defal leen bañ bëgg nga xam ne duñ duñ aajowoo di dem ci ay nit di leen ñaan xaalis wala di leen di di yelwaan su ko defee ñi mën a sol comme ni nit ñi solo ñi mën a lekk lekk gu neex comme ni ko nit ñi defee kon boobu mooy ñaareel moo tax yonte yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadis na ughnuhum anil masalati fi hadha al yawmi nañ fexe ba jox ñi nga xam ne ay miskin lañ ñi nga xam ne ay foqara lañ amuñ amuñ luñ lekk amuñ luñ sol nañ fexe ba jox leen ci jouru korité liñ lekk luñ sol ba nga xam ne duñ mën a dem di yalwaan nga demaat ci beneen riwaaya mooy uxnuhum an tawaafi azal nañ leen jox bañ doyal walis ñuy wër ci biir nit ñi di yalwaan kon loolu bokk na ci xikma bi tax yàlla di ko yoonal ñetteel bi mooy yenn condition ñooy daje zakatut fitri war a war bi ci njëkk mooy lislaam mooy il faut mburum mburum war ko comme nim ñëwee waaye ku mën a doon moo xam góor la moo xam jaam moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam buur moo xam baado la kooku daf koy génne gannaaw julli rek daf koy génne dégg euh, moo tax bu ñu demee ci benn xadis Abdullah ibnu Abbas di wax ne zakatul fitri min ramadan ala kulli nafsin min al muslimina xorrin aw abdin aw rajulin aw imraatin sagirin aw kabirin ab Abdullah ibn Omar nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa farataal génne muram koor ci bépp jullit moo xam góor la wala jaam la wala góor la wala jigéen la wala wa mag la wala ndaw kooku war na ko génn ñaareel bi ci sarte yi nga xam ne mooy daje muram war mooy nit ki am lu ñuy wax la mooy wujudul li an muunati wa muunati ayaali mooy nit ki am ci alalam loo xam ne mën na ko dundee ci suuru koor te bu mu des lu mu war dundee moom ak njabootam ak lim ak dëkkuwaayam loolu yëpp daf ciy dugg mooy li des ci alalam ci jour korité loo xam ne daf dañ ciy génne tamit kër gi kër gi mu nekk amoo foo dëkk am nga ko ba desal am nga loo jox sa minaan ba desal am nga loo lekk am nga loo am nga loo sot am ngeen lu ngeen taaroo ba mu des ci jour boobu la des nag loolu ngay génne nga jox asakay mburam koor kon desitu alal lay génne waaye nag booy génne desitu alal génne lu baax bul génne lu bon kon bokk na ci sartu yooyu waaye nag duñ sartaal ci ki war a génne asakaay muram koor ku am bor ñu ne gannaaw dafa am bor muram koor waru ko kooku wartu dafa war a taqali ko borom ba pare su fekkee ba muy leb bor bi dana ko kat at at mi ñëw laa la koy fay kon su boobaa may nañ ko mu génnee asakaay muram koor ba pare doo ko fay bor waaye su fekkee dañ koo takk taxawu ko na ko sama damay fay léegi sama bor kon su boobaa li war mooy mu fay bor bu pare jiital fay bor bu pare doog a génne asakay mburum koor te bokk na ci ba tey kon bokk na ci sart yi mooy na am loo xam ne dafa des ci alalam euh, ñeenteel bi mooy idraaku juz in min ramadan wa juz in min min mooy nit ki nga xam ne dafa war a génne asaka day fekk na fekkee na dara ci weeru koor ak dara ci weeru weeru weeru korité mooy lan su fekkee nit ki dafa da doon or dem ba nga xam ne suba la korité avant ba ñu suba la korité avant jant bi soo mu gaañu kooku su boobaa génn asakay moroom koor waru ko waaye bu jant bi sooyee mu gaañu asakay moroom koor war nañu génneel ko day mel ni xale bi nga xam ne dafa juddu avant jant bi so su boobaa ñu ne su boobaa waru dañ koy génneel mbuuram koor xale bi gannaaw ba jant bi avant jant bi so bu ñu ne suba la korité pour su boobaa daf koy génne am nañu ne deet su fekkee dafa judd avant fajar di xar su boobaa dañ koy génneel waaye bu juddoo gannaaw loolu su boobaa waru ko parce que fekkee dara ci koor gi il faut nga fekkee dara ci koor gi fekkee dara ci korité gi su boobaa loolu bu dajee kon su boobaa dafay génne asakaay borom koor ñetteel bi mooy miqdaaru zakat mooy ban kem ni muy toll ñu mën koo génne miqdaaru zakat nag li borom xam-xam yëpp dëppoo li julli ñëpp dëppoo mooy saa saa bi ñu ko waxee mooy xamsatu artal wa thulus mooy juróomi artal ak thulus bi iraq waaye ñu ne dafa jege ba tey ñeenti xafanaat bi yedee rajulin mu'tadilin su fekkee góor nit góor goo xam ne ren jorut ba ëpp gàttut ay loxoom guddul ba ëpp gàttut mu tàllal ay loxoom natt ci ñeent sotti loolu mooy mu loolu mooy saa loolu mooy kon ba tey ñu ne dafay ñeenti mudd ci mudd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te ñeenti mudd mooy loxo bu nekk ñu feesal ko ba mu fees del ba mu mat ñeenti yoon loolu mooy mudd kon loolu mooy muddam koor léegi nag ci la lañ ko war a génnee mooy danañ ko génnee ci dëkk boo dem la ëpp la ñuy dundee ci lañ koy génnee te ba ñëwee Sénégal par exemple danañu dundee ceeb danañu dundee mboq danañu dundee bësi danañ dundee ñebbe raisin sax mën nañ ko dundee yooyu yëpp mën nañ ko ci génnee kon li ñu koy génne mooy lu mën a dundee man koo denc te du yàqu di moytu lu ci génne loo xam ne dafa yàqu wala loo xam ne dafa yées déedéet nañ ci génne loo xam ne danañ ko mën a peese danañ ko mën a peese aussi danañ ko mën a dundee te du yàqu danañ ko mën a denc te du yàqu ci loolu lañ koy génne waaye nag am na uute bu ci am ci diggante borom xam-xam yi parce que am na ñu ne mën nga ko génne ci xaalis am na ñu ne déedéet mën na ko génne ci xaalis daganu ñu génne ko ci xaalis ñi nga xam ne ñoo dëppoo d'accord na daganu ñu génne ko ci xaalis bokk na ci imam euh, imam malik ibnu anas bokk na ci ak shafiye bokk na ci ak euh, imam ahmad ibnu hanbal ñoom dañ na loolu ak seeni saxaaba ñoom ñu dëppoo nañu nuñ ko génne ci xaalis nañ ko génne ci li nga ne moom mooy li yonte bi tudd ci xadis bi mooy xeetu meññe di ibnu qudaama moom dafa wax ne euh, laa tajziu qimatahu nuquudan nee na ibnu qudaama nee na moom soo ko génne ci xayma nga génnee ko ci xaalis du doy waaye bu ñu demee ci alxasanul basri bu ñu demee ci ki nga xam ne mooy xasanul basri ak ki nga xam ne moom mooy ata ak omar bin abdul aziz ak sufyan thawri ak abu xanifa ñoom ñoom lu wax dañ ne man mën nga koo génne ci li nga xam ne mooy xaalis waaye bu ñu koy génnee ci xaalis nag bu wax su nu muy demee euh, dañuy seet li ñuy natt mooy mu mu di yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñeenti xafanaat yi nga xam ne moom la ñu natt ci loxoy góor gi lañu lañu seet nu mu toll su fekkee 2 kilo la ñu seet 2 kilos lu mu toll ci xaalis nga génne ko ci xaalis su fekkee 1 kilo la ñu génne ci 1 kilo ci xaalis noonu lay demee kañ lañ ko war a génne nag ban heure lañ koy génne heure bi ñu koy génnee ba tey dafa am ñetti heure am na waxtu waxtu jawaaz waxtu masnuun am na lu ñuy wax waxtu makro ak waxtu muharram waxtu boo xam ne dagan na nga génne ko ci mooy mën ngaa génne azaka yi avant weeru avant euh, korite gi benn fan wala ñaari fan te loolu euh, Abdullah ibnu Omar moom noonu daa def daana ko génnee avant korite gi ci ñaari fan wala ci benn fan waxtu bi nga xam ne nag mooy sunna mooy nga génnee ko euh, bisab korite balaa ngaa dem ci julleekaay bi nga génne ko loolu mooy sunna bi waxtu bi nga xam ne nag dañ ko sib pour nit di ko ci génne mooy nit ki yéexee ko bañ julli korite pare nga génne ko su boobaa dañ ko sit am na waxtu woo xam ne nag dafa xaram mooy nit ki yéexee ko te moo ko tey ba jour korté passé kon su boobaa loolu moom dafa xaram dégg kon lii noonu la ñuy moo mu asakaay borom koor nañ ko fexee génnee pour jagal défaut yi nga xam ne moo nekkoon ci biir koor bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul yàlla nañu yàlla nangul suñu mboole mi naafila ak suñu mboole mi koor ay rëcc rëcc yi ci nekk yëpp yaa ko yàlla jéggal mboolem li nga xam ne ay kàddu la ngeen di ko dégg ci émission bi euh, du jubluwoon ci dara lu rafetal ak mbaaxal ak jëriñ jàmm yàlla yi waaye lépp lu ci ñaaw tamit ci gàtt xam-xam lépp lu ci rafet ci yàlla la yàlla na yàlla defal dugg defal defal ñu dégg topp defal leen ko in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ila ilu asalaamaaleykum wa rahmatullahi